coppite ñu indi ko ci architecture judiciaire bi loolee ñu mën maa wax ne lu xel mën a nangu la waaye am na ci yenn nomination yoo xam ne daanaka mënula ñàkk ëlëm xelu askan wi bokk na ci procureur général près la cour d'appel de Dakar bii di Ousmane Diagne mi ñu teggi teg fa Ibrahima Bakhoum moom Ousmane Diagne nag jéego yi mu mujjee def ci wàllu liggéeyam bokk na ci division d'investigation criminelle bi nga xam ne daal dina koy jébbal plainte Ousmane Sonko bi nga xam ne mu ngi ko plaintoon avocat yi di maître so ak maître El Hadj te muy ñaari avocat yoo xam ne yu jege nguur gi lañu rax ci dolli mu nekkoon itam ci tànku saytu plainte bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko déposé contre ki nga xam ne moom moo fi nekkoon procureur de la République de Serigne Bassirou toggee muy ay act yu am solo yu mu posé lànk nag benn pouvoir exécutif bu koy diggal li muy def ci wàllu liggéeyam ba tax na nag ñu bëri njort ne loolee moo waral ñu daal di ko déjjati déjjati ba ñu déjjati Ousmane jaañ nag xel daf si gën a teey ginnaaw ba ñu ca tabbee kii di Ibrahima Bakhoum moom mi nga xam ne nag turam daf ñuy fàttali dossier boobu ñu duppee woon Momar Wax Seck ca atum 2006 Ibrahima Bakhoum inspection général de l'administration de la justice daf tuuma ne dafa laale ci li wàllu guerre ba coow loole sax yàqoon deru justice bi bu baax a baax ca atum 2006 boobee ñu tegoon ko ay daan yoo xam ne lu toll ci juróomi at yu mu mënut a doon procureur de la république procureur de la république adjoint premier substitut juge d'instruction ba ci président de juridiction ginnaaw nag ba lu bëri ci sénégalais yi gisee ni justice bi tëddeewul njaaxanaay procureur bi di Ousmane Diagne daanaka tàmbalewoon na def ay jéego ngir tàmbali dalal xel yi waaye nag tey ji daal nañ ko fay déjjati teg fa nak ki nga xam ne daanaka dafay traîner ay casserole